ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen ñi seetaan Tanime TV tey delluwaat nañ ci pàkk bi nga xam ne pàkku jàmm la di pàkku salaam di daaru salaam ñu ñëwaat fi nag ci kër gi nga xam ne ñëwoon nañ fi fan yi muy kër sëriñ am di Mbàkke mi nga xam ne fan yi mi ngi ci kaso bi te ay mbokkam defoon benn conférence de presse ngir yëglu ngir ñu bàyyi seen doom jooju nga xam ne dañu ko téye ci kaso bi dippi weer yi yëpp euh, tey nag ñu ngi ni toog ak famille bi ñu bëgg a xam ñoom fan lañ tolluwaat euh, kii nekk ci suñu wet moom lañ bëgg a jox mu présenté wu wax nu mooy kan ñu daal di continuer suñuy laaj ak moom bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mboolem ñi nga xam ne ñuy topp site bii di Tanime TV ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax ni ko sëriñ waxee ñun sëñ Xaadim Jalaan tudd dëkk fii ci Daaru Salaam di àndandoo ak dëkkandoo ak xaritu sëñ Amdi Mbàkke mi nga xamee ne moom la ñu ci jëlbeen wax ji nga xam ne moo ñu tax a ñëwaat fii tey ci site bi ngir jàllale fi yenn ci kàddu yoo xam ne dafa aju ci plan yi nga xamee ñu ngi ko teg pour naka la ñuy def ba e, suñ mbokk moomu suñ wëlëree woowu sëñ Amdi Mbàkke daal dellusiwaat ci suñuy loxo incha allahu taala yan euh, lan mën nga noo fàttali kan mooy sëñ di sax kan mooy sëñ am di ginnaaw yéen sa xarit la ngeen na xaritoo kan mooy sëñ di ba tey lii ko dal tey nga mën nu cee wax yu leer. waaw sëñ Amdi Moustapha de pour wax ci moom ak tamit wax kan moo wax ci jëmmam xamle ko lu yomb la ndax sëñ di mu ngi dëkk Darou Salaam di doom ci sëñ Mouhamadul Halim Mbacke di doom ci sëriñ Afiatu Mbacke. sër suñaa siñaafe la boo xam ne euh, fii Daaru Salaam la dëkk ñu xam ko mu nekk koo xam ne fii nit ku baax war a jaar ci ba mu juddoo ba fi mu agsi nii yoon woowu la jaar ba ndogal gi fekk ko ci ndax ku ne xam na ne ku bokk ci ñu mel noonu nit ñoo xam ne ñu mel noonu lañ li ñu yaakaar ci yow mooy ñu jaar la fa nga xam ne fa lañuy ñuy jaarale nit ñu baax ñi ci jàng alquran ci Daaru Salaam fii la ko jàngee bokk ñun foo xam ne fa euh, la doon jànge ginnaaw ba tamit jàng na li nga xam ne si moo di xam-xamu sharia ci biir dëkk bi ak ci biti dëkk bi fu mel ni Daaru Muxti daara Sëñ Abdourahmane Mbàkke ginnaaw bi niñ ko xamee am njàngam sori lool ginnaaw bi mu jaar fii nga xam ne mooy Al Azhar Ndaam euh, ginnaaw bi mu am lii di baccalauréat am maa ngi moom ñoo ko amandoo yàlla dogal moom mu dem Soudan àggale fa njàngam def fa lu tolloo 4 ans jàpp 5 ans yoo xamante ne bii niveau licence la doon def ginnaaw bi ñu fa jógee tamit ñu bis ne fii ci réew mi toog ab diir demaat fi nga xamante ne moo di turc fële na ngir àggale am njàngam ci niveau maîtrise loolu mooy ci tënk procédure bi nga xamante ne wala historique bi nga xamante ne Sëriñ Amdy Mbàkke jaar na ci ci wàllu jàng nga xam ne loolu mu tënk noonu ci waxambaane ba fi mu toll nii loolu mooy liñ ko mas a xamee amul leen loo xam lu mas a defal loo xam ne du bokk taw loolu la. ñun ñu nga xamee ne ñoo nekkoon ak moom ci moment boobu ci jamono jooyu yëpp dooy nañ ci séere bu baax a baax a baax ndax li ñu tàqee rek mooy ku nekk dem fenn foo xam ne fa ngay si njàng comme ni nga xamee ñun ñu dem Arabie Saoudite moom mu dem fi nga xam ne si moo di Sénégal di fa jàng moo ñu tàqale waaye bu tun loolu yàlla moo naa dogal ñu bokk foo xam ñuy jànge kon daal euh, histoire suñu am di ci wàllu jàng ak ci wàllu ni màggee loolu kese la jàng téere borom tabaaraka wa taala muy alquran ak jàng xam-xamu sharia ba nit ñi bisuwaate ci nga xam si moo di mor bi réew loolu mooy euh, ab xamleem euh, li ko dal ni ñu yóbbu ko ci kii ci kaso bi lan la def lan lan wax ne moom la def ak lan moo ko fa téye fi mu toll waaw si ñam ni ñu ko xamee ay weer ci ginnaaw ni ko yëpp xamee jékki rek ñu jot xibaar ne suñu am di day téye nañ ko fi nga xam ne si moo di euh, gendarmerie bu Dakar loolu nag xibaar yi nga xam ne ak si ñun ak li nga xam ne mooy mooy mooy la xew ban téye ko ku ne xam na ne jamono yooyu ay yëngu-yëngu amoon na ci réew mi ci côté ay yëngu yoo xam ne ci diggante camp ñi nga xam ne mooy pouvoir bi ñi nga xam ne xañ yoo opposition bi amoon na ci moom nag bi nga xamee ne ñibbisi woon na fii yi nga xam ne moo di Sénégal ginnaaw bi mu jàngee turc ba ñibbi Sénégal mu logé wu Dakar nekk foofu defal di eh, def ay yëngoom ci wàllu liggéey ci wàllu bëgg a jëriñ boppam ak jëriñ ak njabootam am na lu xew ba mu génn ne di dox na ay yitteem dox ay yitteem am koo xam ne moom la doon seeti jamono jooju ci foo xamee dafa xaw a jege ak foofu yëngu-yëngu amoon ñu ne dafa àndoon ak koo xam ne xañ na am na ab appartenance boo xam ne si nii fa lay yëngu ci wàllu politique. ci biir ah, léegi ñu nga mu leer kan la àndaloon ak lan moo xewoon ak yooyu ndax ñu xam comprendre nga. ki ma mooy Serigne Cheikh Thioro la àndaloon ak lenn ci ñi nga xam ne si ay député di député la yoo xam ne assemblée nationale la nekkoon. pour ñu gunge leen ñu gunge leen pour mu seet benn mbokkam moo xam ne mi ngi nekk ci suma assistance bi nga xam ne suñu ab euh, hôpital bu nekk foofu la pour ñu seeti ko bi nga seet nag tombeeg jamono jooja ci li nga wi amoon bañ barricade woon côté boobu nga xam ne soriwul lool kër euh, leader boobu nga xam ne moo di Sonko bi ñu fa demee nag bi yëngu ngi amee ñu daal leen di fekk moom ñoom Cheikh Thioro Mbacké moomu ñi nga xam ne si ay député opposition bi lan ñu daal leen jàppale ñoom daal leen yóbbu loolu mooy njuumte li nga xam ne si ne bi am na bañ yóbbu leen téye leen fa ci weer yi yëpp nga xamante ni téye leen fi nga xam ne fekkuñ ko muy def loo xamante ni bii dafa wuute ak yow lu yoon tëral wala muy def li ñu wax trouble à l'ordre public ni ñu koy waxee def loo xam dañ koy mën a coller motif daan lii li ñu ko fekkee mu nekk loo xam ne fanaganadil la ñu jàpp ko ci loolu waaye njuumte ak tamit jàpp ko ci loo xamante ni xañ na lii bi ñu ko jàppee dafa xaw a jegeeg fa yëngu yi amoon tax ñu fekk ko fa jàppaale ko daal koy boole ñi nga xam ne si ñoom lañ ñoom lañ yóbbu loolu mooy njuumte li na bañ bañ yóbbu léegi fan la toll moom àtte nañ ko ba noppee lan lan wax ne moom la def fi mu toll. waaw li nga xam ne daal euh, tool nañ jamono ji nga xam ne euh, moom lañ yaakaar ne maanaam fi la fi la toll mooy ku nekk bu la jàppee la nga xam ne moom la jàppee dafa am ay ci ci wàll ci wàllu yoon léeg-léeg mën laa jàpp ci loo xam ne sindi bi mënu teggi tuuma ndax flagrant flagrant délit la jàppe léeg-léeg ñu yóbbu sa dossier li ñuy wax instruction nga xam ne foofu boo atte waxaan li def bu fekkee dangay topp ñu topp bu fekkee topp na ñu ñu ñu lay bàyyi te bu fekkee instruction la boo amee normalement 6 mois dana la war a bàyyi moo xam dana lay waat diglu wàlla wala dana lay ñàkk waat léegi nag moom bi ñu ko kiiyee ba digul nañ ko waaye booba léegi ni ëpp na 6 mois booba léegi euh, leen ba ba xam ndax leen dañ leen toppee li leen toppee dañ koy wala wala dañ leen bàyyi ñu ñibbi dañ leen see rek waaye ginnaaw bi na ci jamono waaye ba léegi ni amul leen loo xam ne wax nañ ko leen loo xam ne wax nañ ko ci ñoom euh, jéegu yoo xam ne si nag mayees na ko def ngir ñu mën a ab dossier ñu mën koo ñu ñu mën koo lijjanti man koo teg man koo man koo man koo tàll bañu xam ndax dañ ko toppal toppuñ ko jéegu yu yu bare jéegu yu ci bare bari mbokk yi amal nañ ko ak am di jàmm yi waaye ba léegi daanaka ñu ngi ko téye te waxuñ lan la def jéemuñ ko àtte jéemuñ ko jéemuñ ko acquitté bàyyi ko dem wala ñu diglu ko àtte ko pour pour tëj ko dañ ko téye noon rek te boo bay ëpp na six mois ëpp na six mois léegi lan mooy seen xalaat fi ñu toll nag moom fi ñu toll dernier euh, fu ngeen jëm fi ñu toll. Euh, xalaat yi nag ak tamit jéego yi boo ba léegi ñu ngi ci ni ma ko waxee fépp si yi maanaam ci wàllu yoon la wala ci wàllu dox mbokk ñu ngi ci doon dox ak di ci wax ngir ñu mën koo bàyyi boo fàttalee fàttalikoo ci ginnaaw lu yàggul lool defoon nañ ko conférence de presse wax mbir mi fi mu toll ak tamit jéego yi nga xamante ne bëgg nañ koo teg pour. ñu bàyyi ñu bàyyi ko xel waaye jéem ko àtte pour bàyyi ko mu dellu ci ak njabootam defoon nañ ko conférence bi boo xam ci kër gi lañ ko def woon médias yu ci bëree fi jàll nañ ko ci télé yi fu ni TFM ak yooyu yu ak seen seen bi ak yeneen yoo xam ne ñëwoon nañ fi ngir ñu jàllale message bi nga xam ne moo jàllale saa tamit ci ñi nga xam ne si ñooy kilifa yi kilifa yi réew mi ñu euh, bàyyi ko mu daal di ñibbi ci ak njabootam ndax li ñu jàpp mooy li ñu mooy suñ ko àttee bu fekkee suñ suñ suñ suñ ko àttee liñ li ñu jàpp mooy koy bàyyi ndax deful loo xam ne si li ñu koy toppee loo xam lu garaaw loo xam ne dañ ci war a téye ni nag defoon nañ jéego boobu waaye moo xam am na lu ci lu ci beesaat ci ndax ñi ci a jot nañ ci wala jotuñ ci waaye ba léegi ni ñuy continuer def lu mel ni lii interview yoo xam ne ak tamit ay yoo xam ne si mi ngi suñ kanam yoo xam ne fas nañ koo def pour dénoncer ak tamit euh, bàyyiloo xel ñi nga xam ne si ñoo wutee pour ñu jëm koo bàyyi mu del ci ak njabootam loolu rek mooy li nga xam ne mooy